l'Assemblée man bu doon man man tey bu doon bu dul moo dul woon politicien yi Sénégal ni mu demee nga xam ne boo waxee ñu ŋàññ la ñu def loolu dama doon woote ñu def mouvement bu nga xam ne ñoo ñu amatuñu place assemblée nañ leen remplacer. ñaar ñi nga xam ne ñoom ah ñu ngi leen di euh, ñu ngi leen di wër peut-être que non xam nga loolu action judiciaire la. waxuma ci action judiciaire bi. non dama ne action civile. xam nga ñi nga xam ne fii dafa am ñu nga xam ne su société civile la ñu wax bu ñu dóoree jigéen mbaa bu ñu defee suñu institution yi ndawul nekk mbaa bu ñu la joxee ak yu bëri yu nga xam ne dañuy taxaw ne dañ koy xeex wala ñu bàyyi ñoom tey xeex boobu dañoo war a taxaw xeex ni ñii amuñu place assemblée wala ñu fa ci am na vide non yow yaa ngi dugg ci beneen affaire mais bien sûr non li ma wax nii xam nga société civile ONG c'est opinion publique bi ni leen di manipuler si yenn affaire yi ñëw leen ñu xeexi lii ñu xeexi lii am ñu nga xam ne bo dañuy wane ne bokk ñu ci parti politique yi alors que ci parti politique yi la ñu bokk mais di woote woo ngeen kii lii ni mu la ñu yem da bëggoon ñu dem. non dañoo war wootee ne ñii. Mm-hmm. wax nañ ne amul place assemblée ku wootu amul place assemblée nationale te yow nga ne société civile nga da ngay taxaw da ngaa war a wax wane naka la nit ñi xeexi pour que kii bu mu dem assemblée nationale parce que li ñu moom bokk ko. moo tax ma ne c'est moo tax ma lii gën a yomb. xeex bi ñu dugal ko ci règlement intérieur assemblée. nee naa la loolu dañ ko war a. mu ngi ci bi. parce que bu ñu ko waxee bi réglé na ko ba pare. parce ah. que moo tax ñu daw. xam nga règlement intérieur la président assemblée appliqué dañoo ne président appliqué règlement intérieur hmm. président appliqué ko bind lettre procureur mu mu ouvrir non règlement intérieur tere na ko ne ku ko def lii mooy dal sa kaw mais ñoom bu doon ay républicain lañu dañuy taxaw ne lii moo war a dal sama kaw damay dem défendre sama bopp. mais dañoo daw parce que xam nañ ne li ñu def àndul ak la fa nekk. Uh-huh. xam nañ ne règlement intérieur assemblée daf ko tere. daf ko tere comme bu ñu ñëwee def ko bu demee day dal seen kaw ñu daw. moo tax ñu daw. de façon Sénégal moom kenn. non dañoo non affaire bi ñu def parce que dóor jigéen ba pare daw. dañ ci kanamu alkaati lan lay nurul <laughs> ba pare ngay woote diine non nitu diine du def noonu. non mais mais mais beneen coow coow politique ah. peut-être que c'est pas la même. Euh, bon xaw ndax c'est la même ampleur ou pas mais bële assemblée xew waxal ba ma xam bal euh, Ousmane Sonko Adji Sarr barki démb euh, wala démb recevoir nañ leen na ah, déglu nañ leen li ñuy woowee confrontation mais après gis nañu ni débat bi euh, dafa polluer également ah, euh, la cette affaire dafa polluer le débat politique dégg nga Ousmane Sonko bi mu génnee moom génnagul ci complot bi moom daal nee daal yéen daal ak ñi ànd ak yéen yéen a ko fexeel ba nga xam ni aujourd'hui euh, moom moo ko indil problème daal comme complot daal xalaat ne sax ñu woo ñenn ñi daal leen déglu quoi ah, xam nga foofu tamit laal nga plan bu nga xam ne man. en tant que sénégalais ak sénégalais bi mu bëgg bi ma Sénégal bi ma yaakaar ne foofu lañ toll. waaw tuut dafa ma dama ci tuuti dama dama ci sewal dama ci sew. parce que man bu fekkoon ne man maay ñi ñu tuumaal. waaw bokkoon naa ci ñi ñu tuumaal ne dañoo violé jigéen ñu téye leen nekk ci prison bi tëj leen kaso. parce que dañ leen a tuumaal kenn am jugé gu leen kenn waneeguñu dara ñu tuumaal leen. Hmm. xamuñu ne ñoo ko def dañu def ñu tëj leen tey si kaso bàyyi ñu leen foofu kenn yëngatuwul kenn waxul dara ñu bokk ci nguur gi mbaa ñu bañ a bokk ci nguur gi. Hmm. te ñoom ñu tuumaal leen ne li ñu def seen biir kër lañ ko defee defewuñ ko tooguñu ba guddi nga xam ne dañoo ne kenn warul. génn doxi couvre-feu la woon couvre-feu la député jël otoom ànd ak chauffeur garde corps am jël fi talam dugal ci poosam hmm. dem ci benn bërëb bu nga xam ne nee nañu massage la yow nga xam ne am na lu ñu ci wax Adji Sarr nee na foofu ku fay dugg ci biir doo doo sol tubéy doo sol mbubb dem foofu hmm. ñu jiiñ la ñu bàyyi la ngay dem ak a ñëw di woote nañ ñëw alors que am na ñeneen ñi nga xam ne dañu leen jiiñ seen mbindaan baa keneen mu leen jiiñ ci seen biir kër ñu weddi ñu jël leen ne kërëb tëj am ñeneen ñu nga xam ne dañ leen di bàyyi di werante di tuumaal ndax moo ko def non fii ku fi wax ne moo ko def ak doo ko def. da ngaa ñeme yàlla. Ah. Ah, maa ngi baalu. parce que fii ah. dañu ñeneen yi kon kon nañu bàyyi nit ñu juger mais fii dañoo am tribunal tribunal mooy juger ndax dëgg la am dëgg est-ce que ñañ fa tëj yëpp li ñu leen wax li ñu leen tuumaal loolu la. Hmm. mais pourquoi nga yaakaar ni ñële. non bàyyil ba mu pare gis nga la affaire boobu. waaw yegg <laughs> non il faut ñu xool ko parce que fii Sénégal. <laughs> man damaa commencé jaaxle dañoo commencé changer. Hmm. Sénégal moom lañ doon wax dëkku kumba am ndey ak kumba amul ndey ku am doole sénégalais yi dinañ la bàyyi nii rek mais ku amul doole dañ lay jàppale ku ñu suufeel dañ lay jàppale mais ñi ñu jàpp tëj parce que dañ leen a jiiñ. am ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi fii di wanewu doole député la chef de parti la mais liggéey justice bi la non mais lan moo tax lan moo tax déglul déglul rek xam nga waaw léegi waaw léegi kaay ma wax loolu nag lu wax nga lu am importance waaw si sa logique no réew la nekk nag non sama logique laay wax xam nga fii Sénégal buñ dafa am ñu nga xam ne ay opposant lañu mais jéem a nekk ay leader d'opinion dina société civile la ñu bokk heure bu ñu jàppee opposant di nga leen gis taxaw ñu ne dañuy intervenir pourtant am na ay nitu pouvoir yu ñu fi jàpp mal leen ci dara mosoo leen dégg ñu ne ñii nañu négocier bàyyi leen mais fu ñu jàppee opposition parce que ñoo bokk table yi nga xam ne fa la ñuy négocier Alioune Tine am na sax ñu nga xam ne ñu ngi commencé changer bañ leen dalee seen kaw bi léegi mais moom comme il répond à l'étranger la preuve day am ay une yu nga xam ne yu ñu koy mooy ci journaux étrangers alors que ñun Sénégal bi ñu dëkk moom gisuñu ko muy kenn du ko gis bëccëg kenn du ko gis bëccëg guddi rek nga koy gis baat ci journal. <laughs> kat noonu. Alioune Tine non doo ko gis bëccëg <laughs> day nelaw. ensuite bu ñu jëwee ñu ñëw la ñooñu ñooy ñëw taxaw wax dañuy défendre kii nañ ko génne Pape Alé ku ne ku ñu jàpp rek bu mu tudd tur ku ñu jàpp rek ñu ne nañ ko génne bu dee opposition nga négocier ñëw ne président Macky Sall moo ko jàpp. boo boo boo taalee sa oto ànd ak sa garde corps. ànd ak sa chauffeur. xam foo jëm dégg naa sax mobilier yaa ko jënd ak lépp xam nga ka fa nekk. dem nga fa demaat fa nga ne président Macky Sall moo la complot pour nga dem foofu ñoom ñu téye ko ne dañuy défendre complot boobu mbaa bind ne affaire bi non kenn du la juger ñoom ñooy juge ñoom ñooy partie ñoom ñooy juge alors que fii ak koo mënti doon bu ñu la tuumaalee. Hmm. nit porte plainte dañoo war a respecter ay droits am surtout que am nañu élément de preuve. waaw mais élément de am nañu élément de preuve xam nga bu ñu génnee tuwaat fii preuve. xam nga ñu ngi jéem a wax tey fi ñu toll nii ku nekkay wax rek di yuuxu. dëgg la mais la fa am foofu. gis nañ ko ñëpp wax nañ ko li ci leer man li ma dégg. mooy que am na ñu nga xam ne duñ nekk foofu dañuy génn di yuuxu mais buñ leen waxee lu nga xam ne mënuñu ko tontu ñu noppi. Hmm. bu ñu bu ñu bu ñu waxee benn génn ne ñoom tontu nañu rey nañu keneen yi alors que bu ñu leen bu ñu leen sonnalee ñu noppaliku. Hmm. non gis nga affaire bi dafa reer bugguma dugg ci affaire boobu mais fii nañu Sénégal nañu respecté suñuy institution te bàyyi dina nañu di woote ay négociation dina non nañu bàyyi fii dem dafay délégation nañu bàyyi fii tey journaliste yi taxaw dina nañu génne kii journaliste la te ñoom ñëpp xam nañu ne dootul journaliste parti politique la bokk bàyyi naa nekk journaliste depuis longtemps jël objectif saaga nit yuuxu nit ngañ la tuumaal la sos la ñëw sa bureau xool ndax mun nga ko jox dara boo ko joxul mu dem bind livre mbaa mu def leneen buñ ko nee indil sa preuve mu daw wuti ay gàllaaj yu dul jeex sol ay sabandoonu gàllaaj defe ne dina ci génn li ngay wax ni monsieur le ministre non li may wax affaire bi ba pare buñ ko jàppee ñun ñu ñëw neen bu ñu ko jàpp <laughs> te day xas nit ñi buñ ko nee preuve du indi preuve mu jël li ñu am li gën a importance mooy nos force de défense